Thank you. démb mbër ma waas ca géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro un Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu le 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ngéwél de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan combat bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche point com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbër ba ci bi dara du leen ci rëcc image dina leer te it dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro moo dëkk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg leen teg di leen xamal moom la bu dul moom eh du fi yëngu cey numéro un ñëw na ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant euh, yéen ñi fi toog yëpp di nuyu sama adversaire bu baax a baax Pape Thiam Junior di nuyu monsieur le maire sax Modou Bamba Fall di kontaan si moom ndax dama am combat mu yëkkati xaalis bu bari may ma ko maa ngi koy sant Bamba intérêt laa yoral bor te incha allah le 24 dama la koy fay kii nag moom lu may wax amul ndax am na lu wolof jaay wax nee dama faa dugoon mu neex dama fay dugaat force te neex ñam naa ko mu neex bàyyi naa ko amul fenn foo ñam mu neex danga fay dellu Pape Thiam daaw jéeg doxal la sama combat maa kew nga dem say mbokk ne maa la moom na ma la mën a daaw laa la mën a leen barki Seydina Mouhamed su arbitre sifflee di nga am te ne waga nga ko saqal doo bëre doo xeex te lam 5 la 5 incha allah carte maa koy def yow benn ngay ñibbee may bëre maay xeex maay attaqué maay daan te doo mag si niin te doo daan loolu na la leer nañ barki sëñ Bamba yow du maak yow law boolewul de xam nga lu nu boole saa yi am lu ma nekk rek barki sëñ Bamba mais maa teew boo amee benn ma bàyyi la maa la gën a bëre ëpp la fit gën laa xeex ëpp la xaalis ëpp la ñu lay jàppale fuuf nag man monsieur le maire du ma président laa ko wax ne kii mooy sama président kii monsieur le maire président la man mooy sama président man internet waaw ñi may jàpp ñu la jàppale ñi may bëri takat ñoo ñi ma daan ñoo la gën a bëre te damaa duggoon de maa xam nga loolu damaa duggoon te damay duggaat force ñam naa ko mu neex bàyyi naa fu ma am amul fenn ñam naa ko mu naqari bàyyi naa moo am fenn asalaam. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di sant yàlla di julli si yeneen di sant samay ñaar waajur sama adversaire nag bàyyi naa ko mu kii ne laamu man moom ku ma gis xam ne xamee ma wax jëf laa xamee yow bu bis baa da ne man du ma bëree du ma xeex loolu boo ko waxee da ngay nax sa bopp boo ko waxee da ngay nax sa bopp yow man maay bëre maay jàpp maay daan billaahi maay bëre maay jàpp maay daan jour làmb ji maay dirigé boo yaakaaree ni nga toll nii nii yëngal nga ma da ngay nax sa bopp man Ponkol daanu ma loolu laa bëgg nga def ko sa bopp bi waaw maa ngi ñaanal sama Pape Thiam nag di ko ñaanal jàmm yàlla ko yàlla defal jàmm di ko ñaanal tan di féliciter sama mag Marley di ko ñaanal yàlla ko ndam ne jik di ko wax ne ñun ñoo ngi si ginnaaw maa ngi nuyu suñu waa équipe ñëpp. waaw ah, auzu billaahi mina ko saytaane rajim bismillahi rahmaani rahim ah ñu ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp ci signature bi ah di nuyu tey Assane Ndiaye parce que sunu rakk la sunu xarit la lii muy def yaakaar naa ñun ñoo ko doon def ba mu demee ba ak ci fen fi ñun amat sunu temps ñu di ko jàppale moom mu koy def mu nekk nit ku baax ñuy gërëmit waa Bawal ñii fi nekk ñëpp nekk samay mber ñoom mbay guy gée ngi fi aatu sama écrit internet ah ak journaliste yëpp ah tey nag kàddu gi daanaka mën naa ne kàddu cant la parce que Bamba Fall tey bu fekkee ni dañu ko tuddee drapeau mu jël ci benn drapeau di ko delloo njukkal du Fall wax dëgg yàlla Bamba da xar rek waaye loolu mënoon na la ci bañ a fekk parce que ku ne xam na tabaski ni mu demee Modou Fall tabaski la gaañu Bamba dagg ay iteem yëpp ak ñi koy seet dem ba dëkk ba ànd ak moom yóbbu ko ba ci biir bàmmeel ah jox seen waa dëkk dund gu doy ba noppi dem bi ma ko wooxee nee na ma man maa ngi sali parce que mënuma tey kii gaañu wax dëgg yàlla ma nekk nit ñi dikk di ñëw sama kër parce que man nekkuma fi mu toll yaakaar naa ba bés ba dellusee mu rey ay nag wàcceel ko ay kaamir defal ko quarantaine de jours te wax dëgg yàlla dafa ta da ko taxaw woon parce que daf ko embauché woon parce que da ko ne jamono neexut parce que mairie kenn moomu ko dama lay embauché pour que ëllëg ak si biir bu ma demee ba nekk maire de Dakar wala ma nekk président tey wax dëgg yàlla nga des ci mairie bi des sama wet. Sénégal qui gagne lamb daa war a di boole waaye war a di boole waaye donc bu jëlee drapeau bi nag tuddee ko suñu suñu papa yitte yi jàppoon dañ koy bàyyi ñëw dooleel ko ndaxte ñun ci li ñu yëngu mosu ñu seetaan benn yoon yaa ñu buñ ci nekkoon nag suñu papa ji seetaan ñu amaana moom it bu xewlee dañuy toog waaye mosuñu seetaan muy nit ku baax maa ngi ñaan képp ku fi taxaw ku bëgg Serigne Babacar boo ma tànculee sama papa ji taxaw yàlla na Serigne Babacar Sy taxaw. yàllaa dogal boobu dana sax ko ma indi mu yëkkati enveloppe bu mag jox ma ne ma sa papa Balla Fall moo la ko yónnee donc tey ñu la tuddee drapeau bi ñun ñëpp dañuy jug ñëw ah rawatina nag ñu am bis bu mag muy le 31 octobre fii ci stade Iba Mar Diop ah le mooy lamb ji damay ñëwaat playback ndaxte man ak sama papa bu ko ñëw yendu ñu añandoo jubali stade mais nag le 31 octobre Sidi Diop dafa am bis bu mag du dëgg muy muy Bercy Dakar àdduna di ko waajal Sénégal gépp di ko waajal ñu tëgg ko ak ay xale yoo xam ne ñooy waa LP Events di benn association boo xam ni dañoo jóg di dox ci mbiru production bii nag mooy seen première année ñu koy tëgg tëgg ma ko man sii di Diop mais nag ñoom dañ fay nekk pour ñëpp déwén mën nañ tëgg sama beneen frère après déwén mën nañ tëggaat sama beneen frère ndax dañ fi nekk pour waykat yëpp comme que première année bi nag yàlla dogal liñ naan les voix de même plume volent ensemble ñu tuddee ko sama papa ji tamit bis boobu muy le 31 octobre waa LB Event si def lu rafet ma rafetlu ko donc papa ñi ngi lay dénkaat bis bi le 31 octobre ñi ngi la koy dénkaat maa ngi ànd ak sa doom Zeyna borom Seneweb ñi ngi lay dénkaat bis bi di am yaakaar bu mag a mag a mag ci yow ci bis bi ndax bëgg nañ mu nekk guddi goo xam ne sa sera une première fois sax nga ñëw seetaan sa doom parce que dégg rek nga ci am ak ma ñëw playback mais jour boobu moom damaa bëgg stade bi ku yéex doo dëggu ndax. ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant ñëpp ñoo fekk ah di nuyu ñëpp. avancé leen tuuti waaw. sama adversaire moom dafa neex rek moom li xale yi moom new ñu quoi waaw. waaw ma sama adversaire ma lu mu koy wax bëriwul dama koy wax bu bis baa mu teel a ñëw rek waaw xam naa day tëdd quoi bilaay dëggalee boppam moom combat bu yàgg loolu rek laa am lu ma koy wax gannaaw ma sant yàlla maa ngi koy nuyu bu baax ma sant te maa ngi koy ñaanal bu bis baa yal na ko yàlla may jàmm bu mën a ñëw si ñu si yàlla àndee moom insha allahu dañ koy yàlla ñëw insha allahu rabbi benn gëm-gëm kese naa am nii dama koy tàmm gëm-gëm boobu rek laa imaan bi sa soo yàlla insha allahu rabbi bu xeexee ma dugal bu bëree ma dal jël bu rëy te dinaa ko dal lu ma laaw bu bëree bu bëree ko dal du ma laaw bu rëy bu xeexee bu xeexee dinaa ko dóor mu wàcc mais loolu soo ko def tey man maa la wax loolu te bu si yàlla am de insha allahu rabbi li ma la wax dama ko def lu leer dama am surtout boo xamante ni booy di buñ daal aale moom bu xeexee ma dóor ko mu wàcc su bëree ma daal ko jël bu nekk ma laal suuf yaa ngi doon plateau man maay doon plateau bu si yàlla andee insha allahu rabbi et histoire ko baaxul le ah. Jali Bravo Thior ak Ida Sène Ndaw ñooy sama liggéey sama yaay ma bokk nawet bay kon benn mu ngi nekk ragal. yaa loolu mun ma nekk ragal. maa xam ne bu ñëwul fii le 24 xanaa dina ñëw ndax day bañ nga euh, di di di xof. non du may dee gën a rek comme que ñëwul nii du may dee gën a métti. Ah. waaw dafa ma merloo. loo koy yóbbante. non dama bëggoon mu ñëw mu ñëw teel moo mais le 24 du may day gën a métti moom day gën a métti moom mais maa ngi ñaanal sama grand général yàlla may na ndam sama xarit ah. mooy la woote waaw. alhamdulilah. waaw baax da ngay gën a réer waaw lay brisili la fa série de Kër Mbaye Fall eh Kër Mbaye Fall le karatéka sama ñaari gars a acca laay ñu jox la nga waam sa adversaire dëkkante ngeen soowante ngeen léegi nag li ci des le 24 boo jàkkaarloo ñu tëj barrière yi ba arbitre bi dox sa bu ñu sant yàlla ñaari waajur di sant gars yi ma àndal si mel ni sama toomaal naay biri sili ak Assane Boña ah, doole xam nga di nuyu monsieur le maireAmba Fall di ko woo si combat bi ñëw jàpp si donte Kër Mbaye Fall laa dëgg ma damaa bëgg nga dugal sa loxo si combat bi nga jàpp si bu baax a baax a baax xam nuyu ñu fi toog ñëpp suñu yaayee suñu papa yi xam kii yow lu ko wax bariwul làmb ji fii jaratul wax xam nga di ñëw présenté wu nii rek lépp le 24 la incha allah waa Kër Mbaye Fall maa yónni yàq te bu jour waa li nga xam ne lépp la si kàttanu yàlla atu nee na waa Kër Mbaye Fall dañu ko yónni yaakaar ci ko lool dina la góor dina la daal man nag pompalum góor ñu jàkkaarloog man ni ma dinaa la duma dinaa la daal ah dootoo ko waxat waxalal ko. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp ñu leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu promoteur bi di nuyu sama adversaire di nuyu fi teew yëpp di tey di nuyu sama mbokk Bawol Bawol yi. ñii waa kër Pape yi dama leen di jaale mooy seen frère bi nga xamante ne nii dafa gaañu woon muy daaw euh, muy nit koo xamante ne nii ku ma estimé woon leen ci làmb bu ma ñëwoon dama ñëw du ma yàlla jële ko fi ma leen ko jaale bu baax yéen ah di woo ñu nekk fii ñëpp di leen sàkku ci ñoom ñaan surtout Bamba dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko li nga xamante ni moom lay bëgg di woo sama mbokki bawol bawol yi di woo sama mbokki parcelle waa yi di woo ñi nga xamante ne nii ñooy ànd ak man tunt sama waa écrit dama leen sant di leen gërëm parce que gis naa coono ñuy daj ci man mais lépp lu ñu soxla man maa ngi ko gën a soxla kii bu bés baa du dem du wax du jëriñ man maay def man maay wax man maay jëriñ lañ fay def man maa koy def fekkee ne doole la wala xam-xam wala bëre maa ko fuuf ak Seydina ah billaay wallaay taala lex ma nekk ci moom la ma tëral nekk waaye kon du ma nga xam boppam rek. mais bu jour waa sama diggante maam moom xam nga la xalaat ñàkk xalaat ñàkk la damay ñaan yàlla muy may ndam yàlla ma yàlla may ndam si kawam barki Serigne Touba Mbacke loolu kese laay ñaan ñaanuma leneen bilaay walaay di sant ñëpp waaw di woo waa Kër Mbaye Fall ñëpp laay woo waa Kër Mbaye Fall ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñoo ngi sant Serigne Touba bu wér di ñaan réew mi yàlla def ci jàmm bu baax a baax a baax barki Serigne Saliou maa ngi nuyu ñëpp képp koo xam ne yaa ngi teew fii maa ngi lay nuyu di leen ziare di nuyu monsieur le maire Bamba Fall di nuyu ñaari mbëri fils de Balla général Malika di nuyu bépp mbër bu fi teew di nuyu ménager yi Matar Ndiaye ak euh, Bakhoum sama grand frère ba Dione maa ngi koy ziar baax di nuyu daaw la mon ami mon frère kii maa ngi moom samedi dimanche la bis xaju ci maa lay ziar bu di nuyu ñi nga xam ne ñoo may jàppale ci bis bi samay sponsor waa Distingo kaye Distingo maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa diwlin Sador samay doomu ndey samay xarit moom ko di ñaan Médina bi yëpp ñuy consommé diwlin Sador seen doom yi di jàngi ñuy jënd ay kaye Distingo Bamba maa ngi lay gërëm bu baax di ñaan ci barki Serigne yàlla taxawu la yàlla jàppale la nit ku baax la nit ku gëm boppam la nit ku bëgg lu muy def la du ànd cuune jàmbaar la Bamba di àndal jàmbaar la bëgg di wax waa Medina lu ne fàng kenn du jeex li Bamba def Medina ñëpp gis nañ kon nag duma nekk Medina am ku mel ni Bamba Fall danañ ko toppatoo danañ ko jàppale di wax nag képp koo xam ne bawal nga dëkk nekk Medina ñu jàppale Bamba Fall nekk si ginnaawam ndax lim lu ñu mënal kenn mënaluñu ko liggéey lay def gëm boppam di wax waa Medina nag ku mel ni moom boo ko amee doo ko fooyee tee leen Bamba yàlla jàppale ko jikkoom ak jëfam wallaahi al azim romb na mairie Medina su ngeen xamoon li ngeen yor di ngeen ko téye fukki loxo juróom Medina ci xol ma bëgg waa Medina ngeen tàcc monsieur le maire balaa muy jël parole. waaw li may njëkk a def mooy damay ñaan ñaari kii yi ñu kal man lu amul organisation boobu wàcc kon si yéen ñaari mbër yi ñi ànd ak yéen dañu leen wax ñu dal parce que li ma commencé gis neexuma violence baaxul te CNG bi tamit mu ngi jël ay notes parce que bu ngeen àndal ñu ngi tax CNG bi mën naa am sanction bi gënalu ma kon donc il faut ngeen nangul ma il faut ngeen arrêté waaw lii monsieur le maire def monsieur le maire taxaw tuuti lii monsieur le maire def dafa am sens monsieur le maire da leen a won ne. non joxañ leen ko rek. non non yow yow. fils de Malika général lii général de Malika fils de Malika moo lay may xaalis yàlla lay may xaalis kon ñun ñaar da ngeen a war a xam parce que kenn ku ci nekk yaay sa trésor morom loolu la leen monsieur le maire wan ni leen faire fay bokk nay bokk baay léegi nag monsieur le maire merci euh, ñu bàyyi message à l'endroit de tout ce monde nga xam ni sa jëmm ji moo tax ñu teew. maa ngi gërëm euh, conseil municipal bi di bi yëpp ñoom ñëpp ñëw ak ak adjoint au maire yi muy ay délégué contrat ñoom ñooy jël avance bu ñu tëjee barrière yi ñoom ñaar rek ñoo fay des kon ku ànd ak ñoom danga leen war a jàppale ci seen bés gunge leen ci mais bu leen yàqal bu leen indi fitna le maire et de sécurité ñi nga xam ne ñoo fi tey ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ci seen euh, esprit républicain ci seen engagement ak seen détermination vous êtes des soldats de la nation vous servez la nation avec patriotisme avec détermination et avec rigueur na leen nit ñi di bàyyi xel xam ni ce sont nos frères bis bu événement amee li nga xam ne moo leen soxal mooy veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens te loolu amuñu ci masla amuñu ci lu nga xam ne dañ ko ci négocier kon nag ñu ñëw ci combat diggante Fils de Balla ak Général Malika combat ko rëy combat gënu ko ne ñaari gaynde dëgg la Assane boole ñaari jàmbaar dëgg la Assane boole ñaari xale yu tolloo dayoo la Assane boole ñaari xale yu am gannaaw am fit am jom am fulla am fayda la Assane boole moo tax bu ñu dajee ñoom ñaar faw mu xaw a tàng tuuti parce qu'ils ont le sang ñaari jeunes la ñu entraîné ba yàlla may leen kattan macha allah le 24 ñu war a fekkoon ci biir géew kurpañ yi dina tàkk bëre bi dina neex ñoom ñaar en bas en arrière que général bés bi daanaka ñëw na ba pare waaj nga ko waaj nga ko ak say mbokk ñëw nga yëngal nga waaye nag le 24. sa du la may dara. bañ sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari nuyu waa Malika Kër Massar àll ba ñaax di nuyu suma mafia bi ma àndal di nuyu suma xarit yëpp di nuyu ko siyaar di ko jox wàccu di nuyu ñoom Baye Demba di nuyu waa kër famille père a kii nu mu tuddati tënkat yi waa kër Pape Seck di leen nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu assistance bi yëpp di nuyu père Bada Dione mi fi teew ndax yaakaar naa ne kuy dund làmb la vraiment di nuyu ñu teew ñëpp di nuyu suma adversaire Fils de di ko jox waayam naan leen lii làmb la rek dañoo ñëw pour fair play waajal bis bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà le 24 mooy bés wax naa ni bu arbitre bi tëjee barrière yi ba ni la pare nga ni sa adversaire pare nga ma yuuxu dimanche yéegal pression bi yéegal adrénaline bi arbitre bi wàccee loxo bi sa diggante ak mbër nan la nar a demee pare nañ démb tey soog a ñëw man làmb mooy suma métier man du ma mbër boo xamante ne damay bàyyi ba am combat di pare naa ci côté bépp pare naa ci tous les plans làmb ji bu léegi léegi rek pare naa di ñaan yàlla am na yu fi jëlee jaar yàlla nañu yàlla lafal cat ba làmb ji yegg si jàmm di ko ñaanal jàmm di mm-hmm. ñaan ba le 24. Mm-hmm. waaw loolu laa wax. le mel ni sama mag yi ñoom Pape Ismaïla sama gars yi mu àndal yëpp mafia bi gars yi mu àndal ba combat bi taxaw ba léegi mara ñoom ñooy fanaan chaque jour ñooy ànd entraînement maa lay liggéey bu baax waaw di bëggee bu baax di ko wax tamit ay xale lañ rek si siyaar bi waaw di nuyu tamit baax di gërëm sponsor bi ma maa koy bëggee bu baax moom moom Jalor sama maa koy gërëm bu baax Aziz Ndiaye di di bëri tamit Assane Assane Assane bi yàgg na métti na mais ñu ngi wax nga ko làmb làmb yàgg na yàgg uti ngaa ñëw ba le bu Malick. waxtaan bi wàccee loxo ba nga yuuxu dimanche nga nar a def sa diggante ak ki nga xam ne mooy général Malick. père père Mor bu yàgg moo ko jàpp fu mu ko mën a jaar fa jaar. ah barke sëñ Maam man xale laa bu la ko jàppee bu ma ko jaarloo moom taxaw man maay moom na taxaw rek loolu laa koy ñaan général général bu ñuy maaj loole lu fi bëgg a bindee nee moom mooy dirigé tab général en général mooy dirigé bañ yegg sa laay wax xam naa ne booba tax dinaa wax te góor yàlla buy arrière sama morom du forme bii moo may arrière loolu moom forme na forme yoo xam ne ma ko yoroon dootuma la wax loolu ndax xale laa damay liggéey yaa ngi may dégg li am solo mooy nee naa la làmb ji yàgg na taxaar bi dafa metti te am na leneen du ma waree lu dul lii mm. yàlla nañu yàlla la war cat ba bis ba rek di woo suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaar naan jàpp ci làmb bu baax di woo zone technique su ma doomu nday di woo waa Gueule Tapée waa Assane Gisèle yi fi nekk service Gisèle su ma xarit Pamataar a ngi fi ñoom Baara ñoom Mbodj gars yi yëpp maa ngi leen di woo naan leen làmb di seen làmb la ñoom mbaw ndax fii dafa fay am cër sama kër maama ngi fii ci ginnaaw comprendre nga li am solo yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm mën a 24 loxo dina dar gémmi tëddi bu taxaw mais fils na forme bii nii ba damaa xamul ne forme bi lan ci nekk buñ si méegoo dinañ xam ko bu doole moom du tànk yi moo may daan wala tànk yi tànk yi du moo may daan barki sëñ Mamadou du tànk yi moo may daan du tànk yi moo may daan billaay wala kii fii la fekk nar a daanu sànq ay tànkam dëgërul ah kii du kii moo may daan yow général du yaa may daan fi nga ko teg baaxul yow du yaa may daan loolu laa bëgg nga xam ko nag kii du moo may daan acca woote leen kii biiram bu rëy bi muy mel ni mel bu góor nga naan ma du yaa may yow yow defal liggéey waay sama xoolal eh abattis daa li mu yaakaar moo amul woon daa jàppoon ne dama doon tëdd nelaw moo tax li mu xëy nii xoolal kon xale la. yàlla xam na ne du lii moo may daal. yow du yaa ñaari gaay. waaw waaw damay woo tamit ku si mel ni sama papa Aziz Ndiaye. waa famille Kër Allé Ndiaye yëpp maa leen woo Masaba Khalil Sora Pado di bëggee sama mafia bi gars yi waaye yëpp waa Tëngéej. woo waa Tëngéej waa Paris sama mbokku kër yaa ak sama papa yi maa ngi leen a woo bu baax di bëggee sama gars yi ku ci mel ne waa Deux Roues ma fi yaa Deux Roues maa ngi leen di bëggee bu baax ñoom Aba gars yëpp ñoom Jogo di woo waa amoo 6 4 5 di woo waa équipe bi yëpp suñu équipe président bi di woo tamit monsieur le maire Baba Fall ñu ngi koy wax tamit làmb ji métti na yàgg na waaw ñun soxla ñu dara ay biir rek lañ soxla ku ñu jàppale mu jàppale seen biir loolu lañ koy sant sant ñu ko leneen dañoo may ay biir rek ndax ñu topp dafa bari waaw di bëggee di bëggee waa Daara mi tamit sama booy yi aw ma seen fay. di bëggee ñëpp ñëpp kuy bëggee fi sa Balla rek maa ngi lay woo bu baax nga ñuy jàpp si combat bi bu baax di woo ñu gërëm ñoom Balla Gaye 2 Lac de Guiers Abdou Diouf Elton mbëru kii waaye yëpp maa ngi leen di bëggee bu baax di bëggee tamit suñu kus Lamine Golo waaye ko dul Balla Gaye maa ngi leen di gërëm bu baax waaw. waaw man damay woo waa Malika jëmbal Buur benn bara Kër Massar Alba Niakh waa Montagne waa Moïse ndax ñooñu laa am di woo waa Medina sama mbokk bool bool yi fi nekk ci maa ngi woo di woo waa Casamance waa Badiane waa Bayla waa Bignona waa di woo waa Jaxaw Sud di woo waa Marene di woo waa Fatick di woo képp ku jàppale maa ngi woo di woo waa agent bultes bulletins yi naa leen lamb ci seen lamb la di woo suma gars yi képp kuy suma lonko maa ngi lay woo Modou Kan xam naa Italie maa ngi lay woo Ahmed Fall Diouf maa ngi lay sa lamb la ma sàjjee mbër ma waas sa géew ma waaye bi yoon ki sàjji lamb ji mooy le numéro un Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yi kii moo woote bisu le 31 octobre 31 octobre nag mbokk yi bés la ci biir bés yi ndax dañoo boole xale yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci seen génération combat bu mag bi Ada Fass ak Tafa Mbër mbokk yi ñu tuddee ko ki nga xam mooy jeu technique l'ancien lutteur ki nga xam moo bàyyi lamb ñëw ne day jàppale lamb fan lay xewee ñu bu fekkee mu neex bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex kuñ ko booleel booy yëmbal xale yëmbal bi moom it bu fekkee neex bu bëree mu neex Hercule de boole kook armée bu ngéwél laa ilaha illallah mbokk yi ndaw combat bu rëy yow mi bëgg a seetaan bi bu la ko kenn nettali dawal gaaw seen affiche point com mbokk yi nga jënd fa li nga xamante ne moom mooy sa code yi kër mbër ba ci biir géew bi dara du leen ci rëcc image dina leer te it dana mucc ayib qualité bu am solo lañ leen di jox mbokk yi Fallou Ndiaye le numéro un moo dëkk ak yéen ci bisu le 31 octobre di bëgg teg yéen di leen xamal moom rek la bu dul moom eh dara fi yëngu cey numéro un ñëw na de Amane